bi yëpp ngir jëmmi sëriñ bi ndax ku xool jataay bi xam ne am na kilifa yu tedd yu toog ci suñu biir buñ ci tuddee sëñ Sadeex Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada mënoon nañ caa yem waaye suñu baay baay laay njaay mi nga xam ne moo jiite kër sëñ Touba gi ak li mi ngi ci jataay bi suñu mag sëñ yaat ma Guèye mi ngi ci jataay bi colonel Issa sëy mi ngi ci jataay bi te ñooñu ci ñuy jàppale bàyyi laay ci liggéey bi la am na ñeneen waaye jàpp naa ne bu ñu tuddee ñooñu dana doy kon ñuy ñaan mbokk taalibe yi rek ñu xam ne du lu yomb waaye yomb na it ci wet ndax ñun ñooy wut lu baax lu baax li ñuy wut nag bu ñu ko dara yàqal yàkkamti bu ñu ko yàqal dara bu ñu ko yàqal sëriñ bi la ñuy wut si fii nañ nekk ba mu mat kenn ku ne yeewee ko kilifa yooyu ma tudd ñu ngi leen di ziar bu baax di am mbégte ci seen teewaay bii ndax ku ne xam na ne euh, jot amul sëriñ bi it yàggu la jóge Touba waaye wax dëgg yàlla yitteeku ko xasida yi yitteel ak yitte ju ko njàngum xasida yitteel moo waral jataayam bi tey kon ñu ngi koy ñaanal bu baax ñaanal suñu baay yooyu xam naa di yëkkati kàddu rek lott nañ ci sax waaye ñu jéem rek ci suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo bokk sëriñ bi muy mbooloom is bu tarxiya man naa ne ku dib taalibe rek amel nga leen ngërëm ameel leen cant loolu bu ma ko waxee moo am bu ma ko waxut it moo am ndax néew na ci réew mi ñeenti daayira yooyu tudd walla ñett te ku bokk ca ñoom nekku ca wala ku ca bokkoon te nekk ci yeneen yitte tax mu xat nekk ca kon mel na ni taal la boo xam ne matt gu ne jóge na ci dem boyale yeneen taal taal yooyu it di boy defe naa ku déglu njàngum tey mi dégg nga fi kuréel yoo xam ne wax dëgg yàlla li ñuy jàngit macha allah te la ca ëpp ci roy njàng moomu rek la kon ñu ngi leen di sant bu baax di yóbbante cant ci sëñ Youssou Diop waaye di ñaanal jàmbaar yi nga xam ne murit yëpp dutuñu ko fàtte muy sëñ Atou Diagne yàlla dolli ko leer fa mu ne te liggéey naal yi mu naaloon yëpp sëriñ bi jox kàttan ñii ko wutu ñu mottali ko ba def seen yosi bopp di nuyu it sëñ ci am bi nga xam ne moo jëwriñu Dakar nga xam ne mën naa ne moo fi teewal sëñ Youssou di nuyu it mag ñi nga xam ne yëpp ñoo ne ci ginnaawam xam nañ ci ñu bare bare bari ndax yàlla dogal nañu yàgg lool waaye boo bëggee lim rek xëy na mën ngaa juum waaye buñ ci tuddee sëñ Bamba Diallo ak sëñ Assane bu Mor Diagne ndax kuréel bi faaw ñu tudd ca kenn tudd nañ foofa Mor Diagne mel na ni tudd nañ ñëpp ñi ci des ñëpp ñu ngi ci biir ñu ngi leen di sant bu baax sëñ Assane di am mbégte ci liggéey bii li ma doon wax suñu mbokki pikin yi rek valable na ci ci ci gox bu ne murit yépp li leen war mooy jéem a lu booloo nekk benn nekk benn dafa neex ndax tey jataay bii ku fi ñëw xool xam ne lii rek moo ñu war lii rek lañu war a doon sëriñ bi lii rek la bëgg ci ñun dama koy fàttaliku suñu liggéey bii ñuy def muy bisu xasaay bu Kanzul Moutadine bi ña ko sos ba ñu demee ci sëñ Saliou di ko ko wax ne ko dañoo bëgg daayira yi xamante murit yi xamante dana leen lool de mën la waroon maa waroon jàpp ci loxol ku ne xamale kook moroomam kon murit bu koy def mën nga ci dimbali loola nag mooy jataay bii tey lii waa Hizbut Tarqiyyah def indi ko Pikine tudde ko guddi àjjuma guddi àjjuma guddi àjjuma moom xam ngeen ne Sëriñ rek lañ koy jagleel ndax xasida rek a fi jëm tudde ko guddi àjjuma waaye nag ñu ne ñoom dong duñ ñëw dañoo bëgg bépp daayira bu nekk Pikine li ñu bëggoon mooy ngeen fekke lii xëy na ñun nag lu ci manqué ci ñun la manqué ndax daanu dajul fépp jéem nañ ba tàyyi nag bëgg ñëpp ñëw waaye ruq-ruqaan yi daa bari daayira fu ne bëri daayira waaye ñi ñëw nañ jàpp ne ñoo teewal ñeneen ñi ci des ñu ngi xamal kuréel yi fi teew yépp dama ko bëggoon a lim waaye dafa dafa xaw a gudd ñaar fukki kuréel ak juróom ci la ñu bind te ñàkkut kuréel bu ñëw rek làqutu dem toog ne ñoo ne ñu ngi ci biir cant gi kon kuréel yooyu ñu ngi leen di xamal ne bu kàddu yi ñuy waxtaane ni daanoo kenn ku ci ne sa kay jiite sam njàng soxla nañ leen ci jamaat bii ñoom ñooy jàng njàngum tëj toll ci 20 minutes incha allah kon maa ngi jégalu baax sëñ Assane sant moom mënta weer sant xam naa ne li nekk suñu xol xolu murid yëpp moo ci nekk kon kenn ku nekk na nga jël li li nga yëg ci sa xol ci lu baax nga xam ne loolu mooy ñun ñëpp moom la ñu jagleel suñu mbokk yi di waaye su tarxiya di sant bu baax ci kàddu yi di gërëm kàddu yi ni muy demee nii rek la kàddu yi man bu ma daaneelee dañuy jox sëñ Assane Diouf mu wax yóbbante bi jóge ci jëwrin Youssou Diop jaar ci sëñ Mout Thiam jaar ci magi taalibe yi egsi ci Assane Assane dina ko jottali bu Assane noppee dañuy egg fee Assane juróomi minute lañ koy may ndax temps bi dañuy bëgg ñi sori mën a ñibbi ci jàmm kon sëñ Assane juróomi minute lay doon bu sëñ Assane noppee suñu kilifa yi nga xam ne ñoo wattu ko sëñ Touba gi yor ko am ci ay taxawaay tey ñaan taxawaay yi ci am yépp yàlla na àgg te ñu ànd kook ñoom ñoom it dañ leen jox juróomi minute <laughs> juróomi minute yi xëy na bàyyi laay wala mu jox sañ yaat ma ku koy waxale ñu ñu ñu ñu ñu tënk ko ci juróomi minute bu ñu nuppee dinañ jox sëriñ Basiiru Amar ak sëñ Koso Sey ñu am tuuti lu ñu wax ci ànd nekk benn li muy jariñ ci nit ak li mu ñuy jariñ ñun ñëpp ndax kenn ku ci ne ànd nekk benn ak di jëfante ci lu baax ak di doxlante ci lu baax kenn ku ne xam na li muy jariñ ñoom ñu wax ci lu mat 15 minutes ah. bu ñu nuppee kuréel bi fekk kuréel boobu ma doon wax toog moom bu ñu daaneelee sëñ sa deex ñaanal mbooloo mi bu ko defee euh, euh, euh, kuréel bi jàng kaddu yi nga xam ne nag mooy kàddu yi nga xam ne muriti Pikine yëpp ñoo koy wax jëmale ko ci mbooloo mi ci soññu leen ci nu ñu war a def loolu sëñ Aliou Diop suñu jëwrin nga xam ne liggéeyu xasida yi ci wàllu bisu xasida yi wàllu àddi yi ji ñuy dajale ci Euh, euh, di ko ànd ak sëñ moom moo nekk ci bopp bi moom mooy def kàddu soññe yooyu moom it ci juróomi minute bu ko defee ñu daal jox kuréel bi mu jàng kon loolu ñu xam ne balaa Basiroo jël kàddu ak jël kàddu incha allah. kon sëñ ñu ngi tuub bu baax bisimilah. sëñ Malick maa ngi tuub kaa yegg. auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa wa barakatuhu maa ngi nuyu ñëpp di seere ñëpp ci turu sama kilifa yi nga xam ne moom laa àndal di ci jiital kon sëñ Saddiix Mbàkke mu sëñ Mouhamadul Murtada ak kilifa yi nga xam ne yëpp ñoo nekk fii Pikine ak jëwriñu daayira yi ci turu ñi nga xam ne ñoom la àndal kon sëñ Modou Thiam di secrétaire généralu daara Hizbut Tarqiyyah bi nekk Dakar ak mag ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu tuddee leen mag yi conseil bi mooy ñoo xam ne lépp lu ñuy nos ci daara ji ñoom ñooy nekk suñ ginnaaw dañu wax jaar leen fii defee leen nii aw leen nii ñoom ñëpp ñëw nañ ba Njaga bi mu ko tuddee tudd sëñ Assane boobu tudd sëñ Bamba ñaa Diallo bi nga bi nga tudd ñett ñooñu rek mën nañoo représenté ñeneen ci des jëwriñ yi nga xam ne itam ne membre yi nekk Hizbut Tarqiyyah te féete fii pikin ñoom ñëpp ñëw nañu ak seen i njiit ndax ñun euh, membre yi léegi dañ leen dag par ay gox gox bu ne ñu wut fa ñaar ba ñett ñoo xam ne ñooy doon seen jëwriñ nga xam ne la ñuy nos lu concerné foofu ñoom la ñuy waxal ñoom itam ñoom lañ àndaloon keroog bañ leen di seet si ñoom itam ñëw nañ ànd ak seeni booloo bataaxal bi nag euh, mooy li nga wax euh, sëriñ Youssou kenn ku ne gis na ne liggéey bi bi mu agsee ci ay loxoom te jóge ci loxoob suñ jàmbaar yi nga xam ne àddina dootu ko fàtte mu siñaatu ñuy ñaan suñu boroom di sotti yërmandeem ci kawam saa su nekk ba ñu sëñ Muntaxa joxoñee ne ñu yuusoo ngoog euh, teg ko ci suñ kanam sëñ Aliou Diop mi am na ay seere yu ci seere woon ca journée xasida bu njëkk ba ne ko yow jëwriñ nga joo xam ne sëñ xalif général des mourides moo la tànn boobu ba léegi nag dafa yëkkati loxoom ubbi wax ne dama bëgg njabootu sëñ tubaab gi nga xam ne ñooy yëngu ci xaside yi ak fu ñu mën a nekk tàllal naa leen loxo ñu dajaloo doon benn loolu nag moom la ñu digal dafa wax ne bu ñu yemati ci tëju suñ daara jee nekk maris te am ay membres yu nekk ci gox yi nekk fa ay daayira ak seen i mbokk ak seen i am di jàmm nañu dem di xamanteek ñoom jaxasoog ñoom ñu xam ne liggéey xaside yi ñoo ko bokk guddi ajuma gi loolu moo ko waral loolu nag dafa wax ne fu ñu fi dem sëriñ bi day bokk na ci lim jànge ci li muy seq ak moom ci ay wax mooy njabootu sëriñ tubaab gi yëngu ci xaside yi mu nos leen ñu doon benn te loolu yaakaar naa ne journée xaside yi ba ko sëriñ bi wootee woo ko digal ko ko lam ko njëkk wax mooy boo fi jógee demal ci sëñ am ndax lépp lu nit di def ci xaside moom ngay dimbali waxtaan yi ñu ci a def sëñ Aliou Diop mi fekke na ko boobu ba léegi lépp lu ñuy def dangay gis ne moom day bëgg ñu ñëpp ñu ànd ko guddi ajuma gi kon sëñ Yërim loolu moo ko indi ñu di sant bu baax nag ci ñaar benn bi mooy journée xasida yooyu ndax loolu seere la bu may seere fii ñun ñii ñooy taxawu programme mu kuréel yépp ci journée xasida yi ànd kook euh, ñi nga xam ne moom lañu sëñ am satu di booleel waaye Pikine gii day saa bu mu xe mosaan woo sëñ yërim mii ne ko ah ndigal li di ñëwaat na bi sàngam la nii lañ ko soxlaa noppi nañ ci te lu mu néew néew lu ëpp ñaar fukki kuréel xasida ak nàngam dañu ko indil bu buñ leen buñ leen nee kër sëñ Abdou borom dër bi ngeen di dal ñoom dootuñu am soxla feneen lépp ñoo koy defal seen bopp loolu seere naa leen ko fii te loolu man mat naa seere ndax ñetti at yi ñu koy dëggal yëpp bokk naa ci ñi nga xam ne maa koy ànd ak ñoom loolu kon moo tax ñu gis ne njabootuk xasida gi nekk Pikine mook Hizbut Tarqiyyah dañoo dañoo war a gën a jaxasoowaat membre yi nekk Pikine te dooni membre yi Hizbut Tarqiyyah gën a jaxasoowaat ak daayira yi fi nekk lii rek mooy mooy mooy mooy kaddu yi daayira yi nag dafa am lu sëñ Yuusu waxoon ci lay tëjee si eh, sëñ Aatu sëñ Aatu dafa waxoon ne daayira yëpp ay turu sëñ Tuubaa lañ ndax nee na turu xasida yi lañ te sëñ Tuubaa xasida yi xasida boo gis turu boppam la bu ne miftaaxu nasri muy caabi ndimbal moom la bu ne saxaadaatul diina muy texeek murid yi moom la bu ne nee na lu mu wax rek tudde ko ab xasida boo ko xoolee jëmmi boppam la nee na kon bu fekkee ne turu daayira yëpp sëñ tubaa la ñuy woo kon daayira yëpp ñoo bokk turu sëñ rek la kon war nañoo dajee ñun lii mooy bataaxal bi ñu yëbal mu wax ne nag nañu fexe gox bu nekk ci ndakaaru nañu dem tàllal leen loxo ne leen is bu tarixee ubbi na ay buntoom ngir jaxasoog ñëpp ngir ñu yëkkati leen mooy sëñ tubaa ak xasidaam yi kon ñoo ngi sant bu baax di jéglu sëñ Modou yaakaar naa lii daal lañ may baloon sama kilifa yi ma àndal it kon euh, seere mat nañ ci seere ñoo ngi leen sant bu baax sëñ Aliou ñu koy gërëm bu baax nag ci taxawaay muy taxaw ci journée xasida yi ndax bu bu xesee jël ba kàddoom euh, wax rek ñun daanaka day mel ni li ñu waroon def ci ab liggéey def na ko loolu itam yaakaar naa ñu ngi koy gis bu baax baax jërë ngeen jëf ñoo ngi jégalu. kon jërëjëf sëñ Assane kàddu yi mat